maa ngi leen di jaajëfal di leen jox seen wàccuwaay di leen ziar di leen wax na tey ñoo ngi fii ci wasaare ci émission bu mag bi ñuy wax jàmmaarloo su mu nee jàmmaarloo nag xel yi dina dem ci mbër yi su mu nee jàmmaarloo xel yi dina dem ci amateur yi su mu nee jàmmaarloo xel yi dina dem ci supporter yi waaye nag mbokk yi tey ay xale laa invité xale yoo xamante ni làmb dafa am ci ñoom yaakaar su mu nee làmb dafa am ci ñoom yaakaar nekk nañ xale yoo xamante ni bu ñu jógee waa Ngor jóg bu ñu jógee waa Parcelles jóg bu ñu jógee waa Grand Médine jóg sama droite maa ngi fi am ki nga xamante ne mooy Siteu bu Ngor sama gauche maa mooy Franc Frambeur nag su ma ko waxee xel yi dem ci Parcelles Grand Médine jàpp Grand Yoff xam nga ma taxee foofu dem euh, ci Cité bu Ngor dem Ngor Yoff Almadi jàpp foofu te nag ñaari xale yooyu laa dajal laa dajale fii tey bëgg waxtaan ak ñoom ci làmb bëgg waxtaan ak ñoom ci seen carrière bëgg waxtaan ak ñoom ci combat bi nga xamante ne dox na si seen diggante ñoom ñaar kii di jàmm taxawal ko ma bàyyi Cité mu nuyoo ñëwee waxtaan wi Cité nuyu naa la. yaa di wax na onze na gannaaw bañ sante ak yàlla julli si yonante bi. di sant suñu ñaari waajur bu baax yée di sant ngor gi ma jóge di leen saaku ñaan di leen gërëm bu baax ngor yoof waxaam almari ñëpp yee di nuyu ñoo bàyyi ñëpp doxandoo ak ñëpp yee di leen masawu coono di leen jégalu bu baax si biir bi ñuy def koñ bu baax yee di bëgg ki ma àndal muy sama bi ma àndal dembis kii mooy loolu nañu yàlla bàyyi rek yee di bëggee jàmbaar yëpp nag yee di wax na bisimilah dal jàmm nag Mm. di wax na Franc Rahmaani ñëwal dalaat jàmm. Franc nuyu naa la. waaw fay naa la. ginnaaw bañ sant yàlla di si Yeesu Kirista Mariama sell bi di wax alléluia alléluia di gërëm suma ñaari waaju di gërëm suma yaay di gërëm suma yaay di gërëm waa SBT di gërëm booy ma àndal ku si mel ne El Layloo Manu di la gërëm di gërëm waa Parcelles Assainies bi ma jógee 1 ba 26 rawatina waa 19 waa jox waa terrain waa Kesso Kaana waa Leus waa dal jàmm buñ de treize di gërëm waa Casamance waa Bignona Bignona Grand Place 22 villages yi di gërëm waa Guinée Bissau bu baax a baax a baax suñu waa dëkk xam nga di gërëm waa Buumal xam ma di gërëm président Ndiago Dioli muy ñoo koy bu baax a baax di gërëm jeunesse Ndiago Dioli. ñoo ñëpp de bu ñu ñëwee ci làmb ji. waaw di gërëm <laughs> xam ma tamit waaw looloo xeexu Ndiago bi di jeex. waaw noonu la demee nag. mais ñoom ñaar ñëpp ku ci nekk ñoom ñaar ñëpp dafa am dañoo tuddee seen bopp ay mbër kii moo ngi tuddee boppam Siteu kii moo tuddee boppam Franc Siteu tur bi fan la jógee. yeah tur bi fu mu jógee mooy rek sumu benn xarit bu naan Ibou Ndoye dox jaama gën ñu fowandoo depuis ñu nekk xale ba léegi ñoom maagandoo defandoo lépp amul luñ dundul si àdduna lépp du booy ngor du fooy rek fooy nañ ko xëy na tey làmb defar nañu ñuy sant yàlla bu baax amaana foofu leen dem bapat amaana ñëpp di lam-laame mu ne ma Siteu yee ma bind ko jël tournoi bi ba léegi nag jigi du ma daal sëñ Fallou mais dañoo gis boo jugee waa Ngor gépp dañuy jóg xale yi ànd ak yow te amaana doyoo ni ni ni mbër wa doy sa diggante yow ak ñoom lan la. yee waa làmb ñu dara sax bar sëñ Bamba balaa ñuy mën a gis dëgg dëgg dëgg bis bi jot sama diggante kii parce que am na lu ma si fas yéene man bëgg àdduna xam ma te dama bëgg làmb siifar ma baa ma xel defaguma dara bar Seydina Muhammad li may wax samay àndandoo ak samay dëkkandoo rek su ma demee ba cinq car di ma topp maa ay dix car wala ay ñetti car damay bàyyi bëre xam ne man dara toppatuma parce que lu ma liggéeyee la ak samay diggante ak ñooñu lu ñuy bare bare. da non parce que man lu ma liggéeyee si dëkk bi la may doon xale lépp sama kàddu ay kilifa dañ koy déglu foofu parce que am na fu ñu ma teg parce que lu ma jaayante la mbooloo mi lu muy bare ku si nekk mën naa la wax turam wax la santaam. yow wax rek yaayam wax la papaam lu mu dund ak ñoom la yow man xeebaluma kenn bësa man boo ma jégalee sa ñaari muus yu coo sa kër sax damay dem teewee ko su ma demul sax samay morom yooyu ñu ko dal samay kaw di leen si sant bu baax ni ma mel ak fu ma yegg rek yàlla ak ñoom la ñooy jël seen cent franc di ko def si man depuis mbapat xeebu ma ko ma si dem di daan ay ba tey nii may wax ak yow yow man sama combat événement la pour gars yi ñu xam ko bar sëñ ba man ma combat njalaxaan bu xam te dama koy waajandoo ak sama waa koñ sama combat mbapal sax mosuma koy waajandoo sama ay koñ man ak ngor ñëpp ñoo koy waajandoo tey bu ñu demee ba toolu yoof di waaj sama bis ay waxaam di waaj sama bis almadi fépp foo tourné danga fay gis sama baas bororo yëpp kon dañuy sant yàlla yaa di wax ne lii si kanam moo daax lépp mm. yaa di wax ne pour jëm a jii nii non bu ñëwagum ci moom bu ñëwagum ci moom Franc tur bi fan la jógee waaw ah, Franc noonu nga tudd dëgg. waaw loolu mooy sama tur. ma yaakaar da duppee sa bopp Franc. non non noonu laa tudd de. noonu la demee na moo dugal ci làmb. waaw lu ñu dugal si làmb ñun xam koñ bi ñu mbër la parce que boo ko koñ boo ko Ousa koñ kon boo nekkul mbër nga wax yow. Mhm. parce que foofu pour yow boo nekkul mbër nekkoo dara parce que ay mbër nga dëkkal ñun loolu si làmb di ko fooyee def si lu ne tarbi làmb fu ne ba yàlla dogal day ñuy bëri arène ñun ay xale yu ndaw lañ defaguñ ci làmb dara mais bu ñuy génn suñu koñ da ngay yaaxam mbër bu mag mooy génn. Hmm, loolu am na. yaa ngi comprendre. Hmm. promoteur du tegu ko amul mbooloo. Hmm. yaa ngi comprendre. yee dama ñëw bëre premier combat wane sama bopp. ñaata combat nga def. man deux combats laa bëre deux victoire heure bi war na fekk ma bëri lépp loolu. mais ak feebar bi nii la gaan da ngay bëre benn combat war a bëriwaat beneen ñu la ay feebar yu kenn xamul gaan moo ñu tàrreel mais. kan ak kan nga daan. sama premier combat maa ngi daan Valdo bu Dalifor. bisu combat deux giga sama deuxième combat maa ngi ko bëree bis combat Cheikh Tidiane Niang ak Ndongo Lo. Ndongo Lo waaw booba nekkoon sama deuxième. combat kon yow bi nga gëjee bëre ak léegi yàggul. non yàggul mais waroon naa bëriwaat mais ay affaire feebar yoo xam kenn xamul nu mu demee gaan ñun ay xale lañ dañoo war a bëri heure bi war naa bëri ay six combats wala sept. 2020 laa dugg si làmb mais ay feebar moo ñu xaw a tardé nii rek moo tax ma bëri. un an un an nga dafa gum ci làmb. un an waaw. ok deux mille vingt. deux mille vingt laa dugg si làmb. un an deux ans yu manqué tuuti rek. waaw. si ta ñaata combat nga def. yow man maa ngi si trois combats. ñaata trois victoire. bi mooy sa quatrième combat. bi mooy sama quatrième. mais sa diggante yow ak moom. yow yaa ko bëgg wala moom moo la bëgg parce que dañoo gis ngeen nekk ay xale yoo xamante ni làmb dafa am ci leen yaakaar ñu teel leen a boole nga yaakaar combat bi teelu non du kaarala teel sax làmb xale day war a neex dafa war a yow man damaa bëgg a wane sama bopp yaa da si ñoom ñi laa ko war a bëgg a wane. est-ce que dina yomb sa diggante. non dara du yomb. àdduna dara yombul te dara xëyul ak sotti te dañ siy nekk rek fekk borom bi jalul bii nii ñun dañ siy nekk saa su ne si lépp duñ bàyyi dara bu ñuy ñëw dañoo xam ne jàmbaar yi ñëw nañ. démb dama am lu ma dégg nga wax ma ko nga ne ma su ñëwee mu xam ne doomu ngor bi ñëw na man xaalisu jën lañ ma ngénte. man la demee man ngor laa dëkk. yaa te ngor laa dëkk boobu ba léegi waa làmb dañ koo umpale bés bu jotee nag ñu jox ma liñ ma war a jox rek dinañ ma jox man ngor laa dëkk. ñun ñoo la ko jox dëkk ma yeew nag dëkku cosaan la muy ngor muy yoof muy waxaam foofa dem am naa fa dara mais mais mais lan nga wax Franc dama gis bi ngay ñëwee ba léegi nangu leen a xoolante damaa xamul naka la demee noonu kii damaa bëgg moom mu wax man may wax di jaaxaarloog moom dañoo ñëw tey fii nii yee pour bëgg a mel jàmmaarloo jàmmaarloo mel ni Kumba Gawlo li mu way dina neex dina yëngu dañoo jox micro <laughs> jox dañ laa jox micro jox ma micro yee yaa ngi wasaare làmb de <laughs> neexoo beneen tala bi ngay tudd. sëñ bi yemal rek eh. man maay man maay sapkat nga eh, nga picc ramatu. Eh, dama bëgg nga picc ramatu yow nga ma. sëñ li nga am def ko ma si ja lépp xam nga la laa bëgg la nga jot a def keroog bul ko fa def xam nga laa bëgg. bu arbitre sifflé dama la koy ñaan rek. mooy def du yaa ma koy wax sëñ bi dama bëgg dal bu. dama la lan la sapkat nga. xam nga li ñuy wax sap mënoo mënoo ma mënoo këlëm dama bëgg nga dama bëgg nga déglu ma force eh, man dama lay linjaa dama bëgg nga déglu ma laa la ñuy linjaa man dama ngaaxa bëgg nga déglu ma man arbitre bi bi mu sifflé eh, eh, arbitre bi mu sifflé man maa la bu doole barki maam Seera man juróom-ñaar yow rek la yow xanaa yow tàngaay maa la man maa ba rek. maa la man eh, eh, maa la ëpp doole. Eh, maa la borom gangu kam foore bi. maa la borom mafia fëgg door boobu ma meen daa Sadio ma ne ma niga. maa borom lintoo bi wala déggoo ma yow xanaa déggoo borom lintoo bi. maa la borom lintoo bi. maa la bés ba yow sigili migili saaka maaka joxaay teew yam ñungura ñungurang bi yow wala déggoo tëmb teer naru. xam luy jën bu bees yow nga dëkk mais xamoo luy tëmb. man may lekk jën yu bees waaye ay eh, boos lañ ay porteron lañ. wala déggoo yow luy boos. Eh, tëmb teer naru doo dégg loolu yow. luy boos yow. déggoo wax jooju. yemal gëstu wax jooju mooy lan. mooy doyoo gëstu wax jooju kii li ma li ma ko mën a junj mooy lan. naa la yóbbu ilo. boo demee say mbok yu xam dëgg nee nañ fa mooy ilo. Eh. loolu sa njaago la. wala déggoo ma <laughs> ñamule du koobu. kii man gën naa ne moom li muy eh, laaj man maa ko soxla ay force eh. li may wax da nga koy dégg par la eh, force li may wax da nga koy dégg la mën maa la bu doole a yem ngay dellu fii doo yem ngay waxal doo dërëm maa la mën maa la bu doole doo yem amoo doole yow. maa la man maa la ëpp doole li may liggéey doo ko liggéey. sifflé taxal dëggal sa bopp. ah dëggal sa bopp lan mooy dëggal sa bopp yow. daa xam ni dëggal sa bopp tapet yi nga def fee bu ko fa def de. lan mooy tapet. taxal dëggal sa bopp laa la wax. yamal man ngay waxal lamu texel nga doon bëre yaa ngi soog am lamu eh, ngay waxal. lamu texel nga doon man ngay wax la del xool ma del sab rek. man nga siggi xool ma kon picc ramatu rek. man maa la ëpp doole. koo ëpp doole maa la ëpp sañ-sañ. yow mu doon nit. ah damaa juddu ragal ñu wàcce ko. lamb ji lépp lu fay maa koy sax mu amul ñoom. ko si man wala déggoo ma man damaa juddu ragal si lañ ko roccee si man tapet nga moo tax génération bi ma juddu amul ragal moo tax nga nekk eh, tapet génération bi ma juddu amul ragal tapet sëñ bi maa la gën a nekk baala fop sëñ bi eh, maa la gën a nekk baala fop bala du wax bala laa ngaax nga laa eh, wax bala ngaax nga bala du wax bala laa ngaax nga dama lay linjaa foos dama mën a linjaa ngaax la ñuy linjaa ngaax la ñuy linjaa sëñ bi nga xam ne kaay kaay toogal toogal yow sëñ bi nga doon jëflante ak njaago bi bokkule maa la mun maa la bu doole su ma la tàncee lu ma la laaj dañ ma koy jox wër na leerut yàlla bi toogal del kon picc ramatu. waaw ah, da nga baar nga. li nga xam si lamb ji bi muy yeewoo am na koñom ñu ngi fan. fan fan may woo téléphone yow suñu wax ko borom daaru. lan moo tax moo lan moo tax nga ñeme xam la kan moo tax ñu xam xam la. kii damay dox ngor dañ may wax kan mooy Franc mere naa la. mais amaana lamb ak ni mu demee man nangu naa ne sama morom la. te nangu naa ne ñoom war a mayante xaalis. Hmm. kii dama koo dimbali yow loo def si laamu lu ma deful xam nga lu tax dama ko dimbali. kii lambaam ji mu sëñ bi defoo eh. si laamu lu ma deful ba may dimbali. kii lambaam ji mu mujjee bëre rek troisième combat bi la bëre xaw ma kii dama koo dimbali jaante ko yëgal ko spécial bëre loo ko drapeau dama bëgg nga. sëñ bi li nga def su ma ko eh, defoon su ma ko defoon def spécial ñi seen i parrain la ñu ut. ñëw taxaw ñu bëre loolu huitième combat pare nga ut sëñ bi pare nga ut foofu pare nga ut ba pare nga li nga su ma ko def bëre grand combat li may mobiliser doo ko mobiliser. man kii def naa mi toog si média yi di sab naam ay moom ruq bi mooy toog déggoo lu toog man parce que moom bu moom bu toogu boobu rek mbooloom du fës man Iba Mar fu ma toog dafa sama mbooloo day fës parce que borom ay mbooloo foo mën si toog jàmbaar yi fu la fekk sa asikoo yëpp la ñuy ñi baale ngor yow dal déggoo ma ah, jàmbaar yi da laa mere de ah, am na wax bu dégg nag fa la la meree te la fekk jàmbaar yi yow lañ meree mi jël njaako bi jàmbaar yi yow lañ mere. waaye man may doomi lépp jàmbaar yi yow lañ mere yow. borom Dakar wala déggoo ma mais mais borom Dakar Siteu. doo rek la xamoon Dakar Siteu doo rek la wala borom. Siteu xamoon Dakar Siteu borom doomi fi ku penc yeeg. gëmoo sa Siteu kaay toog kaay toog. waaw yow yaa mag Siteu yow yow yaa mag Siteu. damaa bëgg nga dal. Siteu toogal wala. su ma la magee yow yal na nga am ndam sama kaw. yaa mag fuuf yaa mag sama papa yow te boo may wax. yow man nga sa licence man sama licence ñeme naa la ko jox nga finaan ko dama koy doyee dama koy doyee comme lébu laa. dama koy doyee maa lay junj booba léegi. mais mais maa lay dégg si média yi nga ay. Mali dafa ragal njaago bi dama jàngi ngor ku fa def teew rek mu naan ay booy foo dëgg parcel di sóoraale kii du ma toog ba liggéenti ko. mais ku seen ngor da ngay da ngay foo dëkk ak ay parcelle nga dëkk di ko jéem a sóoraale. xanaa da am ñoo yónni ngay bërele maa la lépp lu fay maa koy sax bisu làmb ji barki Seydina Muhammad su indee jox ma ma diwoo ko sangoo ko fan nga teg loolu pour wan na ko moom li muy wax ay ngor ku fu eh, mooy dëkku mooy dëkku jàmbaar yi mooy dëkku yi soo bëggee feex lu dëgg wala ngay dund lu neex fa ngay dem en tout cas kon ku fa dugg da lay xottil mbaax déggoo ma de sa waay ñeme na la de. ngor laa dëgg saara lañ toog moo tax mu ñeme ma. Eh. Ah. billaay wala ngor laa bu ngeen bu wéetee du def nii. kii kii avance bi bëggoon na ko delloo. lu tax mu koy delloo. laaj ko. li waral ma koy delloo mooy samay mbokk delloo eh. moo tax xam ne da maanaam comme ça ñu mu doon jëflanteel ak njaago bi booxul ma neexuma deret. lan mooy différence bi. da ngay xeex parce que ñi mu doon ñi ak man bokkuñu. mais ñi ma doon bëreel. lan mooy problème bi ñi muy bëreel. man ñi ma ma leen leen xoola xoola caméra bi xoola caméra bi. léegi dañ teg man ne ñu mu bëreel ak man ñu ma bëreel bokkuñu. ñi ma bëreel ñoo ma ñi ma bëreel ñoo ma bu doole dama leen ko def Siteu. kii da du yoon de premier combat lu mu bëri machine leeratul muy ut ay yoon di laam laame di jëm ut ay yoon kii sama avance delloo woon li muy wax nii da koy eh. neexal pour eh. làmb ji. kii li muy wax da koy neexal pour mu bëree làmb xam na ne njaago bi ñi mu doon jëflante ak njaago bi ñu. promoteur eh, man samay combat man samay combat boo bëggee dégg dëgg. yee man jëtt laa yor man njaboot laa am te samay combat lu muy lu ñu koy waxaale depuis mbokkoot ba léegi. yee amaana sama mag yi fëgg mooy waxaale lépp pour moom mu dégg dëgg kii mosuñu ma woo wax ma combat sama diggante moom gis naa ko mu bëre premier combat mu ne amaan na combat si tëbu ngor dama koo seetaan reetaan parce que nit woowu ma wax ma wala mu may message wax ma si wala déggoo ma. ki damaa bëgg moom mu nangu dogal man dama laa may loxo. doo bëgg yow. nga si làmb lu ma def. li ngay fay li nga fayeeku si làmb ji yaa ngay soog a fayeeku. position bi ngay bëre yaa ngay soog a bëre. damay mobiliser. man wàllu mobiliser bëgguma nga si débat ak man. ku lu kuy mbër nag. si génération bi. boo toogul boobu yow pour yow sax. ma ne la booy ñuy cooy yëpp sëñ bi bokk naa ak ñoom journée ba ma bokkee ak ñoom journée dama leen noyyaloo. booy ñuy coow nañ booloo waa nañu booloo. bar Seydina Muhammad bu may ñëw ngor laay jóge jigéen ñu ma sa stade bi barki Alaaji Fàllu da am booy yu jóge ba ngor di nga dox ba stade ma sama bis événement la barki Seydina Muhammad combat bi yàqu na nag mais am nañu loon dajale seen xaalis ngir mën a am ensemble t-shirt am seen plastique xale yu jigéen yeek ak yëpp man sama combat da duggee ngor gis jigéen bu sol plastique plastique du lamb t-shirt dara du lamb barki Seydina Muhammad paaye ak maire yëpp dañuy ñi mën a def grand bu ba def sama photo dañ koy def ku si nekk ak li ngay li nga tolloo la ngay def. combat bi ngeen ko woon bëri ñii. combat bi kañ ngeen ko woon bëri moom xiir fii ne rek. la 14 la nga waroon bëri. la 14 bi paase. koy neexal mu bëri ko. kon fi mu toll nii jotoon ngeen waaj. waajoon ngeen daan man xam nga lu tax du ma moroom si lamb man làmb bu doxee bu doxul yëpp man maa ngi dox man maa amaana borom bi mooy dogal loolu te amaana man sama dëkkuwaay wala ñi may àndal man gëmeew ma sax man lan laa. mais sa diggante sa diggante yow ak Franc parce que Franc ni ma déggee ni muy wax nee na sa wax ji fii lay yem. bu bés baa doo doo doo ko jëfee. dinaa mu xam kii moo muy dellu rek mais bu ñu teyoon si mbedd bi sax ma xool. kii bu ñu si mbedd nga teg loolu da koo ëpp doole. wala da koo ëpp fit fan nga teg ñemewul daf maa ñemewul. fan nga teg ne fa mais koo ñeme doo jël avance am ba pare dem ba sibir ñu lay neexal pour nga pour làmb ji. ay dama koy delloo ay parce maa ko raw lan la def si làmb loolu li muy jaay si bolok eh. dama koy jaay lu ko raw. li muy mobiliser eh. dama man ñu ma bokkaloon jour bis combat bi. dama bëgg eh, nga déglu ma. dama bëgg nga may déglu kii làmbaam bi mujjee sa làmba ji mujjee man maa ngi dama bëgg nga déglu ma. tribune ba nga jël xaaj man dama koo jël dama koo yeb. nga fi muy xaaj noonu. kon kon yow da nga koy topp moom mu lay topp. kii non problème si média bi la toog di ndéet naa ay non non. ay damaa indi mbër fii sa Ibou. waaw eh, damaa indi mbër kii mosuma ko bu dul loolu mosuñu dajee beneen combat. amaana moom sama fans la mooy man maa bis muy dagg tike di ñëw di ma seetaan kii dafa maa bëgg. Mm-hmm. ñii lay nax ñi mu àndal. comédien. kii damaa bëri premier combat gis nga mu def émission toog mu def émission di wax lu rafet si man. yéen ba muy ba may si la ma bëggee da ngay ñii mënoo leen nax mu ngi leen nax de. ba Seydou Mouhamad man ngay waxal. mais combat mais combat bi bu xaale bi yàggoon Siteu Siteu combat bi taxawal ko métti woon na wala jafe woon na. métti woon na yée parce que li boo gisee lii tax mu met sama côté yée man amaana man lu ma fayee ko man ñi may àndal xam nañ ñaata la wala du ñaata. Mhm. amaana ñëpp a taxaw mer siisu ne jot na. yee su ma toogee fi na na nangam lañ may fay kon bu yàggee. non jaww ko sax yee kon ñi may seetaan da naan kii ngaak la. jaww ko gis nga yaa may dégg. Ah, mais fay nañ ma lu xamante ne daal en tout cas gis naa sama bopp. yaa te su ma ñëwee dinaa wan ne promoteur bi li nga ma jox tamit gis naa sama bopp te dinaa la ko delloo ba biisa biisaat la. man mos man xaalisu laa man bëri naa ba si ëllëg si cent franc bu ma lekk sax yoruma ko. loolu làmb bu jotee dama siy def lépp kon gaal yi siy def maara bi nekk nee. yee man góoma yoo xam nga la laa gëm est-ce jar na def loolu. yee man xam nga la laa gëm. waxuma loolu est-ce que franc jar na laa gëm man xam nga la laa gëm. ah man lu ma mënta am billet ma ko gënal ku may jàppale bu ma jox sax xaalis na dem jëndal ma ko ticket man fa laa toll. mais est que franc jar na def xaalis boobu ci mystique. miss man masuma fere dara si yi ñooy dugg si foore bi yee ko xamul ngor dégg na ko ko ak mu ngi nii ñii ñooy dugg si foore bi ñi ñooy dem fu ne dañuy ñëw rek mooy man ak sumu waay gaan mooy loolu man nañ ma yee heure bu neex ndëk yee bu aajewoo ma tegu si dañuy tegu yee ma Franc Franc sa sa combat yaag moom waxaale bi yàggoon waxaale bi yàggoon ñaar fan la benn fan wala ay deux heures de temps. wala laal si laamu ñu may ko mu ñëw may ko mu ñëw <laughs> waaw ah, may ko mu ñëw. xam ku ne booy bu na Siteu bu ngor rek nga la waane danaan bu la foyu sax gara parce que code bi nga si am la code ah, ñoom ñooy bëgg bëre ak yow. lan la ma def la si làmb <laughs> demal ah, benn combat la nawet la am fu mu toog naan ay victoire am ak ah, ñaari mooy neexatul. mu bu ndaw si biir quoi foog ah, ji. Hmm. sa combat taxaw na. dañ la yéegal rek. grand mort moo woo di ma ay combat la ñii. la moo tax nga nangoo jël Siteu yaa dama xam ne maa moom làmb la làmb ndaw la làmb amateur la làmb xale la. mais te boo daanee dina am fu mu la a yóbbu. kan kii. waaw kii ma lu tax damay continuer sama yoon rek. Siteu ndaanaan bi lan la. ndaanaan bu mag. noonu la demee nag. <laughs> dañ ma woo ba ma bëree ba pare ay cinq promoteurs ñoo ma doon woo. mais xam nga ni Siteu day xeex. ñi muy ñi muy xeexal. njaago bi bokk si. bu taxawee ak yow du xeex. ñi muy xeexal. njaago bi bokk si. Siteu yaa ngi dégg. maa ngi dégg kii man leneen laa koy ñaan man amul dara lu may wax man bàyyi naa arbitre di siffler may taxaw di xaar ye amaana mbom na ma daan mbëppatee laa bëgg bi mooy sama premier combat ah, moom laa bëgg a appliquer. te kadu xel nga xam nañ la. arbitre fu mu ne man li ma koy ñaan rek bu mu gëm bu mu def dara na mu bëree keroog dama juum. amaana man sama xol amul kiiñaan da nga bëree ko rek dama lay corriger nan da ngaa juum. nan la juumee. parce que bëgguma ma daan ko ba pare ñu ne da koo corriger damaa bëgg nga dem liggéey loolu nga ñëwaat. da nga ko bëgg ci teel balaa muy ñëw ci bés. yaa sa bopp. yaa ma ko ñaanal ko ñaanal. nga dëkk. ñaan. <laughs> moom li mu wax ma. man damaa tarbiyu làmb maa lay dégg si biir wax ku gën a gëm làmb. waaw ku gën a tarbiyu làmb. Seydina Muhammad nangoo def si làmb. li ma def si làmb nangu ko bàyyi samay yitte man amoo ba yitte bu dul làmb. moom beneen yitte bu dul làmb géej gi. kan moom beneen yitte bu dul làmb damaa bëgg déglu ma rek. nga Sénégal bi ñuy toog ku si nekk di tal lu mu lakkee xaram. waaw sama saak dugg si àll bi. moom bu muy dugg si àll bi bëre taxu ko woon dugg. Eh, amaana dugg naa ba génn nag ba làmba ju ma dem ñu ne préfet yi dañ ko arrêté jot naa bëre eh, jaante naa ba demi final nag ba may ka ma àndaloon mu jàll dem final jël ko sama garant bi ma àndaloon te eh, man góoma di dugg si àll bi di bëri ay poussière de Seydina Muhammad damay dugg si jàmbaar yi si ponkali wane sama bopp jàppale di leen defaral yee kon kon kooku gëm na làmb wala gëmul làmb lay waxal li may compétir du ko compétir moom ay dem si làmb dama ànd sama benn grand frère foo bëree nga dem taxawaat mbër ba la neex ñëw naan ñu naan ko njaago bi fii la newoon mu naan non njaago bi dégg naa dëkk bii la nekkoon léegi lii loolu liggéey ah kon yéen da ngeen génnoon tase wala bu dégg ay sama info la doon liggéey non tase ñu de tase wuñ de daa yebal ay nit bu ñu ñëw di xool fa laa si la laa ne kii ko daan ba pat ñaari yoon maa ko joomal kan kan moo daan ba pat ñaari yoon wax naa la ko sànq si biir wax nee naa la laax jéem a laax bu nangal ma damaa bëgg nga déglu ma eh. man ngay waxal. man dama am temps bu may créer. fan fan fan fan ngeen fan ngeen daje woon yéen ñaar ci àll bi parce que maa ngi dégg léegi nga naan euh, bi ñuy lakk yàpp yaa ngi woon ci ci ci ci àll bi moom nee na ay information nga doon wëri di ko boole ay booy naan moo ngi moo ngi moo ngi fan bawal wala. ay moo ngi lan la fay def ak ay dégg naa jinne lay dem ak lan mooy sa si man. musuma toog ba liggéey fi mu nekk ak fi li muy dem mais ay dégg naa dafa dem lijji uti mystique. yaa man événement chaque événement damay génn man bu dul événement damay génn di compétir yi man fu làmb gën a taree laay compétir si île bi. kii di génn làmb de benn làmb leneen ànd ak benn mbërëm ñëw lonkool ay sengoor ñëw toog bu ñëwee ma ne dama génnoon lan mooy génn. <laughs> day gunge. day gunge ñu ne dañoo tar bi làmb dañoo gëm làmb dañoo bëgg làmb ñu amuñu beneen métier bu dul làmb bu gaa yi xëyee di dem liggéey di entraîné ci moom la ñu mu doon jëflanteel ak bii ak njaago bi dafa utee moom mooy xam na ko xam na ñu mu doon jëflanteel ak man bokkuñu si da si dara. loolu la ñaan xam nga loolu ñaan ñoon lu ñuy gën a dem suñu combat di gën a métti nit ñi duñu gën a xam. est-ce que yaa may dégg. sama combat ak man ak moom làmba ju neex la. pour fulla bu bu bu naree jot. làmb ju neex la. si boo condition laa lay jox de man li may wax duma ma si teggi dara si boo taxee dëggal sa bopp. barki Seydina Muhammad foo taxaw dama la fay fekk te moom bu ñemeñee li muy wax mu gëm ko li muy wax na teg ririkaam sama ririkaam li muy ëppalee ririkaam ma tegal ko ko. ku daan jël. ku daan jël wala ku si waxul ku si jëful tamit lu muy wax nii jox ko moroomam te xam naa ne li ma wax du ma si teggi dara. moo xam mu dem di ko ne pour waajal li ma wax wala mu jàpp ne kii day wax nii rek. maa ngi koy wax benn wax nee naa ko man bi ma juddoo lañ dindi ragal si man yee man jàmbaar yi ñoo may yar booba léegi maa lay junj wax jooju amaana làmb la rek barki Seydina Muhammad kii bu dul làmb laa wax mu dajee millier lu ma ko laaj dama koy jox parce que du site bi lay gis barki Seydina Muhammad teewal micro bi di wax rek mais bu baree di tëjoo amaana di nga gis leneen wala déggoo ma ci dégg nga ma bu baax dama bëgg yow nga déglu ma te boo may déglu yow da nga may dégg mu neex la mu lay naqari par force mu lébu bi ngay waxal. nan tey sax xam nañu ngaax nga nan tey xam nañu ngaax nga toog ay. nan tey sax xam nañu ngaax nga. nan tey xam nañu ngaax di di yoole naan nan nii nan tey nii. ñoo ngi may signalé ne temps bi temps bi des bàyyiwul su ngeen amoon kàddu yu mujj yow si laa njëkkee su ngeen amoon kàddu yu mujj. lan lay doon yee di dul wax ne góor jàpp si góor yee di nuyu Baye Fall man mënuma am ñu gën ñooñu ak yaay Fall yi mu bàyyi fee bar Seydina Muhammad dama koy wax di ko waxaat saa su nekk du taay si di ko wax man Baye Fall yi ma bàyyi fee jàmbaar yooyu mm-hmm. ñooñu luñ am dañuy daw indil ma ko parce que am na luñ mbébét si man te am na luñ yaakaar si man yee tey man ak suma waaye tey boo ñu fekkoon ñu toog ñun fi ñu toog mbooloo ngi fa mm-hmm. borom bi moo ñuy nattoo loolu te ñun mënuñu yor dara suñu àdduna parce lu ñu yor dañ koy bokkante ñu suñu biir kaasu café Touba benn bu fukki dërëm ñun ñëpp dañuy naan lu ñuy baree baree baree bar Seydina Muhammad ñun nañ yeewu naan café rek daneen lu ñëw garaawul yee di wax ne kilifa yi nekk ngor mooy ñi yàlla dénk doole yee nañ jàppale jeunesse bi soxla nañ ko bu baax yee naata géej gi léegi doxatul quoi mm-hmm. melul na mu meloon boo xoolee état bi jël na suñu lépp kon loolu rek la ñuy saaku ñoom ñu jàppale jàmbaar yi bépp autorité bu koy dégg tamit nekk su goxam ñu jàppale ñooñu boo xoolee Sénégal ñëpp a ngi jooy ak nawet bi nii yé mi ñu jooy ñu nawet bi parce que ñun ndox bi day ñëw naes wàcc waa si géej gi ñu loolu li ñuy jooy mooy ñu jàppale si géej gi yé ñu man si gis suñu bopp kon nañ ko naan gisee yé man damay bëre laa wax gaal yi lu bare gaal gu si nekk day joxe li mu war a joxe te du ay joxe te ku la si jox jox boobu da siy gis sa bopp gaal lu ñuy bare ngor eh, kon ñun mënuñu wax tamit di bàyyi du fàtte wax jooju parce que bu géej gi neexee dañ siy gis suñu bopp mm-hmm. su naqaree tamit dañ siy gis suñu bopp yee autorité yeneen autorité tamit xam na ñu ngi si yeneen gox dañ jàppale ñuy dëkk si gox yooyu noonu jëm leen dindil ndox yi soxlaa nañ ko quoi eh, na leen jàppale di wax na tamit na ma ngor ñëpp ñaanal te na ma baay faale yëpp ñaanal di wax ne nañ ko daan defee rek ku nekk fukki dërëm ak cent franc ñu ngi koy xaar amaana condamné tàmbale na Sidi moo koy téye ah Ahmed ñëpp gaa ñi commencé kondaane kon lañ ñëw nekk si rek ba kër baak làmb ja kii luy am man la bu neexee man la man lu ma bëgg lay def kii. maa da yaa yor kii lu ma bëgg lay def. dañ dafa tas wax na tamit lépp luñ fi loo xamante ne dañoo juum ñu ngi jégalu quoi amaana ay xale rek lañ deret gi mooy circuler lépp luñ fi wax muy man di Franc muy yow mi toog lépp luñ fi wax lu xamante ne neexul sénégalais wala dañ see juum ñoo ngi jégalu bu baax di wax ne moom champion la champion moo tax ma jël ko amaana dañuy jaay làmb te ni ñu koy jaay nag noonu la ñuy jëfee di jégalu tamit gars yi tamit lépp luñ fi waxaat. di wax ne ñu kontaan nañ bu baax di wax ne combat bi combat vie la sama papa ji du ma taay di ko wax vie mee nga aatu moom moom combat bi amul lu mu daju si man di si woo ay xaritam di si woo lonkoom monsieur le maire di si woo ay xaritam yëpp ñëw jàpp si làmb ji soxlaa ñu xaalis soxlaa ñu dara dañoo jóg pour delloo ko njukkal rek di wax di jégalu di wax ne samay maam yëpp yal leen fi yàlla bàyyi ñoom laa fi dese. Franc waa jot mooy loolu ñun moom ñooy bëggee waa Parcelles Assainies. Mm-hmm. rawatina sama booy. amuñu ay borom milliards amuñu ay borom xam ma ay borom million quoi mais booy lu ñu yor dañ koy bokk ak ñun. xam ma ba si booy bu ndaw day dajale benn cent franc ñun ne la mbër am. xam ma dañuy am dem stade dañuy am ay problème car booy ndaw yi dañuy doxee fii ba arène nationale wala fii ba Iba Mar dafa métti. Mm-hmm. surtout wax leen ko xam ñun mbooloo mooy topp suñu ginnaaw gars yi dañoo war a taxawu bu neexoon defi leneen mais dañoo bàyyi lépp ndax làmb bëgg dimbali suñu waa kër bëgg dimbali suñu njaboot bëgg dimbali suñu bopp ak képp ku sa wërsëg nekk non su ma naree am si làmb dara te duma ko bokk ñi ma nekkal yàlla bu ma am si làmb dara parce que man damay dund social noonu la demee nag ñoo ngi ciy woo ñëpp ku si mel ni grand jaga moom da si jàpp baax a baax dañ koy woowaat grand amourage amuñu fayam buñ ko woowee day ñëw buñ ko woowu day ñëw yaa ngi dégg di gërëm maam Ngor du yàpp moom moom day ñëw force suñu grand la Mamadou borom marché joor ñoo koy béggee bu baax a baax a baax di gërëm père ba xam nga kooku moom da ciy jàpp moom nee ñu woo ñaax ko woo da si jàpp bu baax a baax parce que combat pare woon na si pour defar ñu surprise far affaire bi demee nii xam nga amuñu fayam ñoo woo képp kuy doom Parcelles Assainies mu ñëw jàpp si rawatina suñu mbokku njaago jool yëpp xam nga di jël nuyoo di ko teg si loxo jeunes yi ku si mel ne ay alweer xam nga ñoom landoo xam nga ñoom paa bi xam nga ñoom rama xam nga di gërëm sama mbokk njaago ba jool yëpp di leen wax combat bi seen combat la combat bi combat njaago ba jool la képp ku njaago foo mënti nekk ay jine bi saaw fépp combat bi seen combat di gërëm sama benn papa bu ñuy wax Samba xam nga mooy jine bi saaw di ko nuyu mu teg ko si loxo gaa yëpp xam nga di gërëm sama papa Zuli mooy Italie di sama ñaari kawmaan yi ku si mel ak na Joola maa ngi di bëgg di gërëm Galaay sama jour bi maa ngi bëgg bu baax baax di gërëm waa Dalja bañ te Treize laamu ji seen laamu la di jël nuyoo di ko def si loxo Cheikh waaye ñoom Kéba di gërëm waa marché Goltapé di jël nuyoo di ko def si ala alaay Cheikh jàpp di gërëm waa Liberté 6 waa Kamba di jël nuyoo di ko def si loxo Pierre di gërëm sama papa bu baax a baax suñu waa kër nuyoo di ko def si loxoom seedee ma ko xale yi sama papa Assane mook jabaram wax ma fayam maa ngi gërëm bu baax a baax di gërëm sama papa ñaami ak jabaram dañ maa bëgg dañ may jàppale bu baax a baax sa dañ may conseil di jël nuyoo di ko def si loxo Binta malaat ak Sadio Malak ñoom caat xam nga ñoom kelemandi waa kër gi yëpp xam nga ku si mel ni mami jigéen la waaw mais xam dama ko ma mbër dama entraîné parce que dañoo yaakaar si yow mhm. bañ ma xamee yàggul mais waa kër gi ñëpp bëgg dañu may jàppale bu baax a baax kër googu suma kër la maa di bégee di gërëm sama xaritu yaay yëpp di gërëm waa Parcelles Assainies baax di gërëm sama rokku yaay ku si mel ni Anne Marie maa ko ci njaago ñu dajee ko xam nga na ba jool bi sii wax du moon a na jool mu ngi ko lal ni nu kooloo xam nga noonu la demee nag. billaay gis ngeen. ma Sadio dolli si rek. yee li ma si Sadio mooy maa ngi jégaluwaat. yee di wax ne ñun liñ sol nii amaana dañ koy doxee di ko waxee xale bu ndaw yee moo siy nekk di xooslu muy xel mu bi naata nit ku nekk war na am xel mu sell yee ñun moom la ñuy doxee xel mu sell di kaf di foo di ree mm-hmm. ñu koy ñaanal di wax ne na ko jàmbaar yi jàppale na ko nantey jàppale parce que doomu dëkk bi la doomi Sénégal la yooyu ngor la yeewoo nit ku nekk war na am xel mu sell. xel mu sell ci la lépp xaj. ci la lépp xaj. kon mooy nii. ñu ngi jëm di mhm. moom la ko wax moo moo waral plateau bi. waaw combat bi xam ma sonn na si bu baax di gërëm staff bi ku si mel ni Paul Teneg Madaar bi ay Nicolas ñoom El Hadj Thiaga Faye ñoom man xam nga ñoom Bezo mafia bi yëpp ku lim juum di gërëm suñu waa kër waa Kër Massa di jël noxo bi di ko teg si loxo. Mohamed Afola waa kër gi yëpp waa Fass Mbao ñoom Sora Malick ñoom ñoom ñoom Rhone maa ngi di bëgg bu baax a baax di gërëm waa Bignona Bignona Grand Place stop kaña bu kañoor xam di gërëm lamb bu baax a baax bu ñu amee combat mooy mu dugg fa. mbërëg géwe la yem. xam nga di gërëm Omar <laughs> parce que su ma demee Casamance xam nga igri fos tranquille laay nekk maa koy bëgg bu baax baax. temps bi temps bi ma fa nekkal xam nga di gërëm ñëpp. Uh-huh. kon nu ko si waxee rek Siteu champion la ndaanaan la làmb moo ñu boole dañuy war a neexal bu suñu làmb ñu ñoo ko war a mën a jaay. Mhm. xam ma bu ñu fi waxee cadre bu jaarul yoon ñu xam ne xam ma xam nga jaam bi la quoi lépp lu ñu fi wax mu mu correct ñu xam ne suñu borom la quoi. dëgg la ay xale lañ xale day daw. Mhm. des fois di nga sa na tàng wax loo war ta wax xam ma ku xamul li la si mere yaa xam booy bi dafa réew yooyu. dëgg la fekk bëgg a jaay suñu làmb. dëgg moom ni ma respecté lu war a laa ko respecté. parce que man mbër du ma am parce que mbër man su ma gisee mbër rek xam nga dama am soxal si yow parce que damay xam ne dama bëgg a jàppale sa yaay te man bëgg a jàppale suma yaay. dëgg la daa am lu ma mooy lu ma yeew di gis suma yaay di liggéey loolu laa bëgg mu deñ te te mbër yëpp loolu lañ xam nga loolu lañ opté quoi. Mhm. moo tax man du ma soxale mbër. xam nga su ma naree am dara du fekk sama yaay kon yàlla yàlla ma yàlla jël léegi léegi léegi man loolu rek moo ma métti sama life dara méttiwu kontaan naa ci yow kontaan naa ci yow kontaan naa ci Siteu di leen jaajëfal di leen wax ne nii lay demee ci jaamaarloo jaamaarloo nii lañ koy defee woo ay mbër yoo xamante ni seen combat taxaw na wala woo ay mbër yoo xamante ni nii làmb bëgg na seen combat ñu woo leen dajale leen fi di leen wax na nag yeneen mbër yi nañ ma xaar maa ngi ñëw numéro bi nag mën naa ko joxe 038 57 86 77 038 57 86 pour ngeen contacter foofu ñi nga xamante ni bëgg nañoo teew fii ci wasaare maa ngi leen wax buntu yu ubbeeku na. beneen yoon ci Wassare Lamb maa ngi gërëm sama cameraman ni di gërëm cuun maa ngi lay gërëm bu baax a baax borom sali sama policier bi kenn du yow yaay borom sali kontaan naa ci yow bu baax a baax di jox dig daje beneen yoon ci Wassare Lamb jërë ngeen jëf